leçon numéro quatorze masalikul jinaan wajja a fil xabari tukkee ca xabar ba bàyyi ko ci yonent ba mu ne anna afdala salaatina naka la gën ca sunuy julli alxunootu an tutawalla mooy nga yàgg ca julli ga loole moo gën ca xeetu julli ya yàggal taxawaay ya yàggal rukoo ak sujoot ya loola moo gën ca julli fasloon lii ab dog la fii saw mi ci koor amma siyaamu ndaal koor foofu moom koor min af dalima bokk na ca la gën ca la nga xam ne talabta yaa ngi koy sàkkoo jëfe mardatan ngir gërëm loo bi ca jëf ja sa borom wani ba sunu boroom xewe feyela ay xéewalam koor a ca gën bokk na ca la ca gën koor bokk na ca jëf yu mag ya gën ca ñuy gërëm loo sunu borom ba am ay xéewal sunu borom ndax li an na fil jannati naka ca àjjana baaban bunta nga fa boo xam ne laa yaqiib du tabbi ca buntu ba fii ca biir buntu ba du ca tabbi siwa ahli siyaami ludul ña daan koor faxtasib na nga lim ne loolu lu wér la te nga fexe bokk ca ñay koor ndax nga tabbi ca buntu booba wa kaana nekkoon na malikun imam malik ab arab la woon ma nga dëkkoon madinatul wara ca Makka jiite na jàkkaay rasulullahi je fukki at moom imam Malik ci am ngërëm lañuy ñuy doxe nun Sénégal diine yi nekk Sénégal yépp këri diine yépp ci ngërëm imam Malik la dox mu ne imam moome nga xam ne imaamu naa mooy suñu imam ba muy imam Malik yu diim saxoo woon na min kulli sahrin ci wépp weer wu nekk sawma addi arfi jiim mu woor ca limab ñetti fan fakaana day daldi nekk fii tadde hiifi haa ci ful ga yàlla yi ful jaamu yàlla ga lela arsi ñeel benn bu nekk mu fay la ca fukk bi fadlihi ca ngëneeli sunu boroom ya jalla màgg na kon boo ko xoolee ka saw mi dëhri daa mel ni daa wóor giir ak ndundam ndax weer wu nekk boo ca wooree ñetti fan ñu fay ñetti fukk nga am fan weer boo ko defee ba sa dund jeex day mel ni da woor wóor ngir ak sa dund ndax weer wu ne boo ca wooree ñetti fan rek ñu fay la bu nekk fukk fukki fan am nga fan weeri fan waraqa boo xemmem nañu fii sabatil ayaami ci juróom ñaari fan axni yi ma bëgg nga xam ko moom juróom ñaari fan ya mooy al ula yi may waaja tudd te dooru te ñuy wëndeelu kula haamin ci mépp at mu nekk am na ci juróom ñaari fan yuy wëndeelu ca biir na nga fexe ba xam ko di ko woor maa ngi lay limal yan fan lañ taa un juróom ñeenti fan li zil ci weeru tëbaski woor ko am na ngëneel yu mag yu kowe kasu rajabin ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab woor ko am na ngëneel yu mag jiimun ñetti fan muharramin ci weeru tamxarit woor am na ngëneel yu màgg wayaa u ak fukki fan ci weeru tamxarit ax si bi na nga ko lim ne woor ko am na ngëneel yu mag wëkkëhu ak ñaar fukki fan ak juróom sil xixdati ci weeru diggeew tëbëski woor ko am na ngëneel yu mag yë ñaar fukki fan yë fukki fan ak juróom yaa gi fukk la alsaqeer googu juróom la boo ko boolee adat ko muy fukk ak juróom fukk ak juróomi fan saxbaana ci weeru baraxlu moom la ñuy wooyee ni nisfu saxbaan mu ne woor ko moom fukki fan juróom ci weeru baraxlu am na ngëneel yu mag wa u sil hijjati juróom ñetti fan ca weeru tabaski woor ko am na ngëneel yu mag xus nanga nga jàpp bayaani sama biral man sëriñ Tuuba xus bayaana sëriñ tubaa nee fa kullu man képp koo xam ne ya doomu saxoona fi saw mi haa ci di woor fan yooyu ñu tudd léegi saa soo ca eggee nga woor ko fa sa yenaalu xalset nga am kulama lépp loo xam ne yaroomu yaa ngi koy sakku ca sunu boroom addina ak àllaaxira wa naqaloo toxal nañu ani nabil mustafa jële wax ji ca yonent ba tey ku ñu tànn tey ku ñu solo salla alayhi yal na yàlla dolli ca moom teraanga ak jàmm man yàlla mi nga xam ne hadahu moo ko jubal wastafa ta tànn ko mu ne laxaa ñeel na koor fadaa ila ay ngëneel ngëneel yoo xam ne ajas na lott nanu fii al fii nu nekk ngir di ko tudd an haddiha ci dilim ngëneel yi ya nekk ca koor una farum nanu sakku at maana saxal koori ngatt yooyu boole ca di koor koori farataayu weeru koor ak diggante bi leen loo ca mën a dolli nga dolli ko ca waraqa boo waroom xam-xam ya xemmem nañu ees di woor fii sar di sahri rajabin ci nga woor taqale koor ga lépp ba weer wa jeex pëng ci weeru ndey koor nga wóor lépp muy rajab boo mënee wóor lépp nga woor lépp wa misloo am kemam muharramun ci weeru muharram muy weeru tam xarit boo mënee wóor lépp nga wóor lépp fal tarxa bi nang ko xemme me jëfe njéem sa wérgu yaram may na la ko watti susil hijjati ak juróom ñeenti fan ci weeru tabaski boo ko mënee nang ko woor bu dee yaa makk màkk nag juróom-ñeenti fan ci weeru sil hijjati saa ca waa màkk eggee mooy bu ñu nee suba la tabaski bis booba mooy taxawaayu arafa ca màkk muy juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski boo nekkee màkk na nga xam ne mooy taxawaayu arafa ca ñay aj màkk te taxawaayu arafa farata la ca ñay aj màkk ñooña dañ leen a sant ñu woor ko ña nekkul màkk tamit dañ leen a sant ñu woor ko waaye ña nekk màkk nag dañ fa amaale taxawaayu arafa ca màkk da nga jàpp ne nag màkk mën nañ koo def tey ñun ñu def ko suba waaye jàppal na nag buñ ñëwee suba la tabaski des koy woor ak foo man di nekk la tax nag forcément mën nañ koo defandoog waa Màkka mën nañ koo defa defandoog ñoom yow miy jàng xam-xam na nga jàngale géographie bu gàtt bii ma lay xamal saa sooy julli ci ngoon fii ci Sénégal xamal ne waa Màkka ña nga ca talaata saa sooy julli gee fii ci Sénégal dimanche ca ngoon xamal ne waa Makka ña nga ca altine bis yépp la nag bët bu set jiitoo nañ ca bis ba ca topp juróomi waxtu moo tax sañunu lu ñu ne ñu ne ca nun bu waa Makka di julli suba ca Makka day fekk yow mii yaa ci Sénégal ci deux ci guddi kon boo jullee suba du baax dangay xaar ba sa julli suba jot ci senegal nga doog julli suba ca Sénégal ñi xamut loolu nañ xam loolu saa soo xamee ne waxtu jot na fii ci yow ci Sénégal waa Makka da jiitoo nañ la ca waxtu woowa juróomi waxtu yu teg moo tax dinañ nekk altine te yow yaa nga dimanche kooku doo wax rek lu mu def nga def ko njuum te mën na caa am